ba ca topp ku waye di du am xalaat maanaam lu waay rafet rafet xel xalaat na ca boole ak way waaye ku amutug way bu xalaatee ba gisit du tax mu am dogu sax ca la mu xalaat wéy ca ba jariñu ca moo xalaat ñooye moo ba ca topp mooy ku amul ak lewet ak dënn bu yaatu deesu la jiital mbaa njiit ga du yàgg kilifteef moom kañ koy jox mbaa kay yàlla nekk kilifa daal ñu jiital ko mooy ko am dënn bu yaatu ameeg lewet di jëfandikoo xelam ak xolam te bañ a topp meram akuk ñàkk sago ba ci mujj nag mooy koo xam ne aw yiw du bàyyi ko ci yow jëm ci keneen bul di séentu aw yiw bàyyi ko ci keneen ñëw ci yow ku tabe nag alalam tabe ci aw ñaqam saye boo mu séentu ne faaw yàlla faye ko yabal mbindeef yi ñu jëmale ci moom seen alal ak seenu ñaq wa qaala waxoon na xakimun aji xam xikam li waladihi ñeel doomam ne ko yaa bu na ya yow sama ndoom maa damma ŋàññut alxukamaa way xam ñi xikam chey an dara ka dammihim ni ki seenu ŋàññ li tishin ñeel juróomi yent alkazibi moo di fen wal xujubi ak aaw wal jasañ ak tiit muy saalit wal xasadi ak kañaan wal xiyaanati ak wor wal buxuli ak nay wal xajalati ak yàkkamti wa soo il xuluxi ak ñaaw jikko am na ko yàlla mayan xam-xam bu rafet mu ne doomam juróom-ñeent yi day moytu ko bu baax a baax ndax gis naa ñi am xel xalaat ñi ñaawlu ba tàyyi waaye ni ñu ñaawloo juróom-ñeent yi ñaawloo wuñu ni leneen ba ci jëkk mooy fen ñaareel bi mooy naw sa bopp ñetteel ba mooy gaaw a saalit ñàkku muñ ñeenteel ba mooy kañaan juróomeel ba mooy wor maanaam ñàkk sàmm kóolute ba ca topp nay ba ca toppaat yàkkamti yàkkamti ak gaawantu moom yàqate rekk da ci mujj nag mooy ñaaw jikko wa qaala sufiyaan al thawri xashratun fukk min al mi ngi bokk ci ak bëcc ngéel te mooy rajulun waay yadduhon kook dana ñaan li nafsihi ñeel boppam wala yadduhon te du ñaan li abawayhi ñeel yaari waajuram wali saairil mu'minina ak ñeel mboole mooy gëm ña wa rajulun ak waay yaqra'u kook dana jàng alqur'aana alqur'aan wala yaqra'uhu te du ko jàng fii kulli yawmin ci bépp bis wa rajulun ak waay yadxulu kook dana dugg almasjida jàkka ja wa yaxruju te muy génn wala yusalli te du julli wa rajulun ak waay marra kook romb na xalal maqaabiri ca armeel ya wala yusallimu te du leen nuyu wala yadduxuma te du ñaan lahum ñeel leen wa rajulun ak waay daxala ko tàbbi na yow mal jumuxat ci bisu aljuma xalaa bale din ci ab dëkk fii boobu nekk na ca aljumuxatu juma maanaam julli juma wala yu salli te du julli fii ci moom wa rajulun ak waay awimr ak noonu jigéen nasala ko wàcc na xaalimun aji xam maxal lahuma seen béréb wala yadhabaani te duñu dem ilayhi jëm ci moom wala yataallamaani te duñu xamlu minhu ci moom wala yukarrimaanihi te duñu ko teral wa rajulaani ak ñaari waay yataraafaqaani ñooñ danañu àndonte wala yasalu te du laaj kulun kenn ku ne minhumaa ci ñoom ñaar li saaxibihi ñeel moroomam ismahoo aw turam wa rajulun ak waay laa yu jiidu kog du adda wata woote ba isaa don yendeem wooyeef na ko wa shaabun ak waxambaane yu dayihu kook dana sànq shabaabahoo waxambaaneem nga waxwate moom faarixun aji féex la weetulub ti sakkuwut alxilma xam-xam wala adab ak adab wa rajulun ak waay shabuhaanu ji aji regg wa jaaruhoo te dëkkandoom ja jaayihun aji xiif la wala yutaximuhoo te du ko leel shay'an dara min taxaamihi ca ñamam wax sufyaan asawri nee na fukk yi ne moom ci ñàkki teggiin la bokk mat nañoo moytu lool bi ci jëkk mooy nit di ñaanal boppam rekk yem ca bañu ñaanaaleel ay waajuram ak ay mbokk jullitam loolu ñàkki teggin la ba ca topp koo xam ne danay jàngal xuraan waaye du ko maasale bis bu ne tey mu jàng ëllëg mu bàyyi déedéet lay teggin mooy bis bu ne mu jàng alquran te bañ koo def bis bàyyi beneen la ca topp mooy ku dugg ci jàkk ba génn te waxtu wa aay wuñ ci julli mu sàggan nag dugg ci jàkk ba génn te julli ci jàkk ja ka ca topp mooy ku bu ci ay armeel rekk jàll ñaanalu leen xanaa rekk mel ne ku rombul ay armeel ku bi armeel kay war naa fàttaliku ne lu yàgg-yàgg dana fekk ñooñee foofee ñu tëdd ñu bokk fa tëdd lu yàgg-yàgg yàlla doon leen a dekkal fay leen seen i jëf ko defee nag loola tax mu waaru te ñaanal leen su ko deful rek xat teggiin ka ca topp mooy ku ñëw ci dëkk boo xam ne am na jumaa bis ba itam di bisu àjjuma mu sàggan ba demul barkeelu ci jullit jumaa ga doonte jullit jumaa ga waru ko it lay teggin mooy mu farlu rek ba ànd ak waa dëkk ba julli jumaa da ca topp mooy góor wala jigéen ku mu ci mën di doon su boroom xam-xam ñëwee war naa dem ca moom siyaare ku ngir yàlla teral ko la man ngir yàlla sàkku ci moom xam-xam ak barke ñàkk def loolu nag xëtt teggin la moo xam ci góor ga la moo xam ca jigéen ja la bokk na ci ñàkki teggiin ñaari jullit tase ànd ba tàggoo te kenn jéemuwuta xàmmiku moroom ma laaj ko nu tudd ñu xamante ba mën a jariñante ngir yàlla loolu ñàkk def daal xëtt teggin la ba tey ku ñu woo ci lu baax nga bañ ji xët nga teggin ba tey waxambaane woo xam ne am nag yaatu amuk féex mën a sàkku xam-xam bu am njëriñ mbaa métier mu am njëriñ defu ko xanaa toog rekk loxoy kese ba waxambaaneem googee jeex ci caaxaan rek xëtt na teggiin ka ca mujj nag mooy jullit boo xam ne day lekk ba regg dëkkandoom di ab jullit dend ak moom di xiif te du ko jox dara ca loolee ko yàlla wërsëgale ab jullit kay bu dendeeg mbokkum jullitam te tane ko war na koy geestu ci lam ko tanee di ko dimbale ngir yàlla waaye di rekk rek sa dëkkandoo di xiif moom xëtti deggin gurée la dañu wax ne sax ku ko def ca dëgg-dëgg du ab jullit maanaam daal ab jullitam rafetut waqaale waxoon na kaabun kaabu ne istaxrajitu génne naa minat tawraat ci tawraat gis na tey fukk ak ñaar kalimatan ci ay baat wa katabtuhaa te ma bind leen fii waraqatin ci aw kayit wa allaqtuhaa te ma takk leen fii xunuqi ci sama doq wa anaate man anzur danaa xool ilayhaa jëm ci kayit woowu ko leewoon ci bépp bis maratayn yaari yoon al ula baat bi njëkk bi mooy yeb na aadama yow doomi aadama laa taxaf bu ragal min sultaanin benn buru àdduna maadaama li fekk sax na mulki sama nguur gi baaxeen di aji des ak ñaareel bi mooy yeb na aadama yow doomi aadama laa taxaw bu ragal fa waata risqi faatu wërsëg maadaamat li sax na xasaa i nii samay magasin mam loo atandi lu ñu feesal waxasaa i nii ak li fekk samay magasin laatan fadu duñu jeex ak ñetteel ba ila axiriha dafa jaadul ci yëpp yëpp moo tax mu ne asalisatu ila axiriha yam foofu tax bu dane dama tànn fukki baat ak ñaar ci tawraat bind ko ciw kayit takk ko ci sama doq bis bu ne ma nemmee ko kayit woowu yaari yoon lu néew néew fukki baat yi ak ñaar nag ba njëkk mooy yàlla dane yow doomi aadama day bu fekkee ne yeewu nga te xam ne man maay bóoru bóor yi kon man rek nga war a ragal li feeg maa ngi fi di buuru buur yi ragal ma te bul ragal beneen buur baatu ñaareel bi mooy yow doomi aadama pour ragal sa wërsëg raw la ndax man maa gàddu sa wërsëg te li may war du jeex te ni ma ko diggee noonu laa koy matalee ndax duma fàtte duma jaawale duma tële ci def laa war a def man la ko topp nag ba mu fukki baat ak ñaar waaye dafa indi rek ñaari baat ñi jarul ci ci des nuqtatun li ab sew sew la sa ala laajoon na Omar bunul Xattaabi radiallahu anhu ba'da saalihiina lenn ci way baax ñi waqaalu mu ne ko hal ra'ayta ndax gis nga min ahwaali ci samay mbir shay an dara takrahuhu loolu da ko sib qaala mu ne ko sami'tu dégg naa ne an naka naka yow wadata teg nga raxita tey ni yaari mburu ala maidatika ci sa ndabul lekk wa ana laka ak naka ñeel na la xam ni say ni yaari mbubb kenn ci ñoom ñaar li lay li ñeel na guddi wal aaxaru ba ca des li naxaari ñeel na bëccëg fa xaala ne ko ndax gis nga xayra ne ko laa déedéet xaala ne ko wallaahi ji naa ci yàlla inna haazayni naka yi la yaar alban ba tey laa yekkoo naa ni duñu amate omar daa masa laaj kenn ci ñu baax ñi ne ko wax ma rek boo gisee ci man dara loo xam ne jàpp nga ne jaaduwut nit ku baax war na koo moyo mu ne ko dégg naa ne da teg ñaari mburu ci sa ndabul lekk waaye daa mel ne am na net li bu ne da ko wax ne ko da ngay boole yaari randaay ci sa lekk maanaam yaari yu neexal ñam nga boole ko di ko neexali saw ñam loolu topp bakkan la lem rek luy neexal ñam wa doy na waaye boole yaara nag ci ñi mu dikkee nag mu ne ko danga nga teg yaari mburu ci sa ndabu lekk day mel nekkoon da koy wax ne ko rek la ngay lekk moo ëpp mu tekki ne ko nee nañu amee nga yaari mbir yoo xam ne mais da koo féetale guddi mais nga féetale ko bëccëg loolu de moom xam nga ne bu dee ci zahir ayut sañes na am sax lu ëpp yaari mbubb waaye nag da koy wan rek ne ko koo xam ne bànneel lay xala mujj rek moom benn mbubb ak benn tubéy doy na ko jarul muy sàkkal mbubb guddi sàkkal mbubb bëccëg Omar ne ko waaw ndax lu bokkut yaar yii gis nga ci man leneen loo xam ne jàpp nga ne ku baax war na ko moyu ne ko déedéet ne ko yaar yi nga wax itam day tàggoon waa ñëw faw waxan anasin jële nañ ci anas ne inna shaban naka aw waxambaane ismuhu koo xam ne turam alqamatu mooy alqama kaana nekkoon na azima sadaqati di aji rëy sarax maanaam di bari lu muy saraxe daal shadid al ijtihaadi te aji tar ak farlu fi ci topp yàlla fa marida te mu tawat washtadda te tar maruduhu tawatam ja fa bahasat te yónnee zawjatuhu zawjatuhu muy faaxili bahasat ila nabi jëm ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam faqaalat mu ne ko inna zawji naka sama jëkkër fi nusooxi nekk na ci sukuraat fa baxasa te yónni annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bilaalan bilaal wa salmaan ak salmaan wa xaliyan ak xaliyu wa xammaaran ak xammaar faqaal te mu wax lahum ñeel leen unduroo seet leen fi xaalihi ci mbiram faqaalu ñu wax la ñal ko ne ko xul laa ilaha illallah falam yantiq te tudd lisaanuhoo làmmiñam wax fa ay xanoo te ñu wóolu ne annahoo naka moom xaalikun aji alkula la fa axbaroo te ñu xibaar annabiya yonante ba sallallahu alayhi wa sallam bi xaalihi ci mbiram xal laxoo ndax ñeel na ko abawaani ñaari waa jur xaaloo ñu wax ko ne ko maata faatu na aboohu baayam wa ummuhu te ndeyam kabiratu sinni aji mage ci at la fa arsala te yónnee ilayha jëm ci yaayam annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fa axadat mu jël alxasaayat wa wa jaat te mu dikk ila nabi jëm ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu wax la xaa ñeel ko kayfa xaalu xalqamata naka la mbirum xalqama xaalat mu ne ko kaana nekkoon na yu salli di julli wayete saddaqu te muy saraxe yax bi da cee teg wa xaala bindaale ci waaw waaye daa mel ne xaala mu ne ko rek la kayfa xaaluhoo naka la mbiram bay ki sa diggante wa bay na hoo ak digganteem ak moom xaalat mu ne ko anaaman saaxi fatun aji mere laa xale yi ci moom maratan aw yoon waaye dit di benn isa ngir kaana nekkoon na yu siru di faral zawjatahu soxnaam wa yutihuha tem koy topp fi asiya ci ay yëf wa yasini te mu may mooy fa wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam soxtu ummihi merum yaayam ji day xajaba moo téye lisaanahoo lamiñam wa yaa bilaalu yow bilaal fajma dajaleel alxataba mat nuxriquhu nu lakk ko moom alxama fa qaalat yaay ji ne kay fa tuxriquuna naka ngeen di lakke wala di sama doom ji bay na yaddaye ci diggante sama yaari loxo suma xaalat topp mu ne ana man gërëm naa xalaa xalqamata ci xalqama tarajaxa dellu bilaalun bilaal bi amri nabi ci bi sallallahu alayhi wa sallam ilaa jëm ci buntu kër xalqama fa samihahu te mu dégg ko yaqulu mu wax laa ilaha illa fa maata te faatu fi maradihi ca tawatam ja fa sallaate jullee alayhi ci moom annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu ak saxaabaam ya su ma qaama topp mu taxaw ala shafil qabri ci kuggu bàmmeel ba maanaam ci catul paxum bàmmeel ba wa qaala mu ne yaa ma'shar al muhaajirina yéen mbooloo gàddaay wal ansaar yi ak lansaar man faddala ku gënal zawjatahu soxnaam xalaa ummihi ci ndeyam fa alayhi nekk na ci moom laanatullaahi rabbum yàlla wala yaqbaluta du nangu allahu yàlla minhu ci moom sirfan farata wala xadalan du caageen naafila ay li mu ci namm fardan farata wala naflan du caageen naafila intaha mat na min manzumil axbaar bàyyi ko ci manzumul axbaar net li wu anas moo ko net li ne daa am waxambaane wu tuddoon alxama ku farlu woon la ci topp yàlla ku bari woon lu muy saraxe la itam mu tawat nag tawat ja metti lool ba soxnaam yónnee ci yonent bi ne ko alxama day mi ngi sukkuraat yonent bi yónni bilaal ak salmaan ak xaliyu ak xammaar ne leen mu ngeen demee ngeen seetal ma ko ba xam ñooñu yonent bi yónni bi ñëwee ba ci alxama te fekk ko muy sukkuraat dañ ko doon sax baatub laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax ndax la addis boo wax ne ku mujj ci aw làmmiñam mu dem àjjana waaye ñu sako ko sax ba tey rekk waxu ko ñoom nag ñu daldi ñaaw njortu yebalaat nag bilaal ne ko demal ne ku baax ki nun kat doon nañ ko sax baati seere yi waaye ba tey waxu ko ku baax ki mu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal laaj ne waaw ndax xalxama ñaari waajuram ñu ngi dund ñu ne ko bàyyam moom faatu na yaayam nag day mag rek waaye mu ngi fi yonante bi ne bilaal boo demee ci yaayam ne ko dama ko soxla su ma nee ñëw na ñëw su mënta ñëw nag na bàyyi ma ñëw fekk si ko bi bilaal àggee ci yaayi xalxama ji wax ko loolu mu ne ko ah man kay maay jéem a man kay maa war a ñëw daal di jóg jël aw yatam di ko sukkootoo ñëw ba ci yonant bi daal di koy nuyu yonante bi tam fay ko yonant bi ne yaayi xalxama ji daa am lu may laaj ci mbirum xalxama te saye boo xama rek la am ndax boo waxee lu amut it wax yi dana wàcc ci asamaan xamal ma la am daldi ko ne waaw xalqama lu doon mbiram dëgg-dëgg mu nekk ko moom day ku bari woon julli la ku bari woon ni saraxe la sa laaw sax lam daal saraxe xawma nu mu ci ab lim ndaxu bariwaay mbaa nu mu toll ci peese ndaxu bariwaay yonent bi ne ko déedéet li may laaj kay mooy yow sa digganteeg moom ana mu mu ca defoon mu ne ko man nag dama ko mere woon lool lool yonent bi ne ko waaw lu tax mu ne ko damaa gis mu daa faral ak soxnaam bàyyi ma mbir yu bare bari daal bu doxee sama digganteeg soxnaam soxnaam la cay faral loola taxoon ma mere ko bi yaay xalxama waxee loolu yonent bi ne mere gi ko yaayam mere moo tax mënta tudd baati seere yi daldi wax bilaal ne ko boo demee da ngay indi matt mu baree bari dajale ko ñu taal ko ba muy jëfi-jëfi ñu indi xalxama lakk ko ci biir yaay ji ne ah sama doom ji di sama meññetu xol ni ma koy seetaane ñu koy lakk fi sama kanam yonante bi ne ko ah sawaraw alaaxira day moo gën a metti lool sawara wii ngay gis ci àdduna te ni nga ko meree bu fekkee baaloo ko mën naa am mën naa am ci àllaaxira mu dem ca sawara woowee mu ne ko kon nag dangay ngay baal xalqama te seral sa xol ba mu sedd guy ci moom nga xam ne jàppalatoo ko dara mu mel ni rek moom mosulaa def dara la naqari yonent bi teg ca waat ci yàlla mi nga xam ne nee na bakkanam ci loxoom la nekk xalxame moomu daal julli yu bari yaag sarax yu bari ya du ko jariñ dara bu fekkee ne yow mii di yaayam jéggaloo ko te seral sa xol ci moom bañ koo jàppal dara yaayam ne ko maa ngi lay seeraloo yow mi yàlla yónni ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ne léegi sama xol sedd na ci moom méreetuma ko jàppalatuma ko dara yonent bi wax bilaal ne ko da ngay dellu ca xalxama seet ba xam mën naa tudd baati seere yam déet ndax li yaayam wax ne jéggal na ko jàppalatu ko dara xolam sedd na ci moom bu dee dëgg boo demee danga ko fekk mu mën a wax baati seere yi mu ne ko it bu fekkee li yaayam wax ne jéggal na ko jàppalatu ko dara du dëgg ci moom yaayam ko it boo demee du mën a wax baati seere yi naka bilaal dellu ba tolloog buntu kër xalxama rekk dégg xalxama muy tudd laa ilaha illallah muhammad rasulullah mu daldi àgg wax ñam fa bàyyi woon ne leen yonante bi kat nee na mere gu ko yaayam mere woon moo tax mëntoon a wax baat yooyu ne noonee nag la xalqama faatoo ñu daal di koy waajal yonante bi jullee ko mook saxaaba ya yonante bi dem nag ba ca armeel ya mu taxaw nag ca catul xabru ba ne leen yéen mboolem ñi fi teew ñenn ñi di ñu bàyyi ko Màkka ñëw Madina ñenn ñi di ñu dëkk Madina ne leen wóor ne koo ci xam ne fabati na soxnaam teg ci kaw yaayam maanaam di faral soxnaam bàyyi yaayam na ko wóor ne yàlla rëbb na ko te yàlla du nanguwati daraam lu mu defati muy farata mbaa muy naafi la ñoo ci yemoo yàlla du ko nanguwati nettali bii nag day wane lool ne kenn ku ne war nay moytu merum yaari waajuram rawante na merum yaayam ndax gis nga yonante bi waat ci yàlla ne xalxamam yi julleem yu bari ya ak saraxeem yu bari ya du ko jariñ dara bu fekkee ne yaayam jéggalu ko ba xolam sedd ci moom gis nga it bi yaay ji ne sama xol sedd na ci moom léegi mu ne ko ah boo ko waxee kat te fekkul mu nekk ci sa xolit buñ demee seeti ko du mën a wax laa ilaha illallah la ñuy xamee ne daal sa xol sedd na ci moom mooy yi dem fekk ko mën a tudd baati seere yi def na nettali ne anna Muusa naka Muusa alayhi salaam kaana nekkoon na yunaa ji di déyaaleeg rabbahu boroomam fi toori ca doj wa fa samiha te mu dégg bi niddaa ca woote ga ñu naa ko ihbit wàccal ilaa zillil jabali jëm ci ker doj wi tara kon nga gis xajaban kiimtaan fa habata te mu wàcc ilaa gaarin ba ci am xunti xunaaka foofee fa daxalahoo te mu tàbbi ko fa ida fiihi am ti lu nay nekk na ci biir xunti ma xulaamul as ngóor yar kaxu koog dana rukkoo wayas judi tamit sujoot lillaahi ñeel yàlla taxala kawe na fa sàllama te mu nuyu alayhi ci moom fa raddahoo te mu fay ko su ma xaal topp mu wax ko ne ko marhaban maa ngi wax marhaban bi ko ci yow yaa Muusa yow Muusa xaala Moussa ne ko wa man ana kan arrafaka xamal bismi sama tur wi xaala mu ne ko allaamul xuyuubi xamaa kanub mbóot yi kumpa yi ëllës yi xamkat bi nga xam ne kuntu nekkoon naa aabuduhu di ko jaamu xeexu naa fii sabhiina juróom ñaar fukki sanatan ci at xaala Moussa ne ko wa ma ak sag naan wa libaasuka ak sa koddaay xaala mu ne ko kullu zalika lépp loolee min hindi man ma nga bàyyi ko fa ka nga xam ne laa taraahu du ko gis alxuyoonu bët ya wala tuxaalituhoo te du jaxasoonteeg moom ak zunoonu njort yaag jiixi jaaxa ya waxaajatii te sama aajo léegi jëm ci yow yaa Muusa yow Muusa anta duxuwa moo di nga ñaan allah yàlla taxalaa kawe na añ yeji xala nii mu def ma min ahlil ba bokk ci waa ajana wa xaraja te mu génn moom Muusa min al gaari bàyyi ko ca xuntima wa araada te mu bëgg añ yaf xala mu def fa samiha te mu dégg bi daay ca woote ñu naa ko laata doon bul ñaanal la ñeel ko li ànd hoo ngir naka moom min ahlil naari mi ngi bokk ci ñooñ sawara farajaxata dellu Muusa Muusa alayhi salaam yebbu di jooy bukaa jooy shadidan yu aji tar xataa bakaa ba jooy alxulaamu ngóor sa li bu ko ay ngir ay jooyam xaala Muusaa ne ngóor si maa sanxatuka lan mooy sa jëf yaa xulaam yow ngóor si xaala mu ne ko maa aataytu dikkeewuma maa asiyatan genn mooy wala taraktu te bàyyiwuma waajiban wenn waru gar wala kin ni waaye man nag xasaytu mooy naa alwaalidayni ñaari waajur ya xaala mu ne ko innaka naka yow kat kon min ahlin naari yaa ngi bokk ci ñooñ sawara xaala mu ne ko isa kaana ndem nekk na la budda mënta ñàkk faduxu kon ñaanal allah yàlla ay yam la amu feesale jahannama jahannam bi ji simi ci sama yaram li allah yadxulahaa ngir mu bañ koo dugg moom jahannama ahadun kenn minal muslimina ci jullit ñi illaa ana ndare man farafaxate mu yëkkati moom Muusa alayhi salaam farfaxoo jisam ba ila sama jëm ci asamaan wa araada te mu bëgg an yadduxuwa mu ñaan allah yàlla bi zalika ci loolee fa isa bi nidaa yi am lu may rekk ci woote ga ñu naa ko laa tadduxu bul ñaan loxoo ñeel ko bi ci loolu fa indi naka man xadd jaaltuhoo def naa ko maanaam mujjal naa ko min ahli sahaadati mbokk ci ñooñ texe war rida ak ngërëm bi sabrihi ca muñam ga net li salaam dafa nekkoon ca doj wa di déeyaaleeg boroomam mu dégg am lu ko woo naa ko wàccal ci suuf doj wi kon da nga gis lu yéeme yéeme mu daal wàcc ba agsi ci am xunti moo xam ne ma nga ca suuf doj wa naka mu dugg ca biir rek ci lu ko bett bett mu fekk ci as ngóor soo xam ne xëy na dañ ko tuddi as ngóor as ngóor daal lañ ko tuddee waaye dana wax ca kanam ne moom nekk na ci xunti moomu di jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at Moussa fekk ci ngóor soosu kon ci biir xunti ma muy julli rek di rokkoo ak sujoot naka ko Moussa nuyu mu fay ko ne ko ah man de bég naa ci yow loolu yow Moussa Moussa ne ko ah ku la wax ne la Moussa laa tudd mu ne yàlla mi nga xam ne moo xam kumpa te moom laa doon jaamu fii mu nekk ci doj wi nekk naa fi di koy jaamu lu mat juróom-ñaar fukki at day moo ma xamal ne ma yow yaay Muusa